kullu doomu Sénégal war ngaa ubbi say gët ci li xew Louga campagne ngir woote yi ñu dëgmal ci gox yi ak gox-goxaan yi ubbeegul sax Louga loo doy na firnde ci sabar bu tas yi ñuy méngale ak géewu politiciens yi diggante maire bi fi nekk tey laajaat ministre Moustapha Diop ak Mamour jàlloo mi nga xam ni avril 2019 la gëjoon a am xëy ci nguur gi te ku ko tudd xel dem ci 94 milliards tasaare xaalis la ñuy jongante ñu fàttali ni ku njëkk gi bu senegaal normaloon du mës a sëgg bëri ndax diwoo diw liñ ba niin batt ki ci des moom dafa jéggi Louga sax taxawe kaabu garaaw ci senegaal ñi leen jublu ñoom waxatuñu dara te ku leen dolli ñu jël wante lu jaadu ci doxaliin sëngéem na fi tax ñu ragal jiwu tey góob looñu rangooñu ëllëg def politik tekkiwul ne noo ko bëggee nga koy defee Moustapha ak Mamour danoo salfaañe ni mbir yi war a tëddee teg ci di gëmloo nit ñi ne ci politique lanu nekk déedéet dafay yomb torop ni ñuy doxale sellul ci politique xel sax mënu koo nangu koppar yi ñuy pasar pasare te kenn mënula wax fu mu jóge amagul lenn lu mën a tee ñu méngale ko ak poson ci askan wi ko gisul ca ba nga ko soxlaa mu tànqam lu woon say coono ñu ne élection ngi ñëw mu génn taxaw teg ci getaroo xaalis di këppatal ku wéet ak sa xel seet ba xam lii bokk na ci liy jafeel ñu am élection yu tax ñuy wax jot na nag ñu xoolaat ko ndax bu dul loolu rekk ku mel ne Pablo Escobar dana dekkiwaat jënd sunu nationalité ñëw tebbi fu mel ne meeri Louga ngir raxas ay kopparam lu mel nii nag bu xewee jàpp ne nii la demee rekk du doy danoo war a fexe mu demee neneen ndax doxalin bii tardeel askan rekk lay def te bala ñu koy gën a ëllëg lii la politiciens yi war wéyaale bu ñu bëggee seen askan tippoo leen ay ak ak bu ñu mënti nekk warula tax ñu jàppe seen bopp lu ñu doonul ñoom lu ñu fi yor rekk dañu leen ko jox ba tax na waruñoo am taxawaayu way nawetaan ci politik wante danoo war a dëkk ci jaamu soxla askan wi te jege ko bu ñu fàttalikoo ci mandat bii di jeex amoon na fi ab ndaje conseil municipal bu fi tegu woon ci fitna ak jaay doole ñaari minikaaru ay boroom kàttan lu Moustapha Diop tuuroon ci mairie bi ñi doon seetaan si ñu ne leen du ngeen fi dugg conseillers yi sax mu am ci ñu ñuy bundu ci biir réunion bi kon jot na ñu gën a fësal way politique yi askan wi tax a jug te ñu wuute ak ñi bëgg a falu ngir seen bopp askan wi mën nañ ko méngale ak jongama ju taaru dafay xam li mu bëgg rek walla mu yombal ko gaa